ce combat est spécial. Laye a confiance. Bichri moo la moo ñu wan ginnaaw. confiance moo ñu wan kanam ah bi bi sifflé waaw. Bichri moo ngi koy moo ngi koy lu weex li. Bruce Lee moo ngeen moo moo ñu woon ginnaaw confiance moo ñu kanam la Bruce Lee moo ngi nekk kër Mbaye Fall confiance nekk écurie Tivaouane ñaari mbir ngay léew too Bruce Lee day ñëngu si ñoo ngi raak ñoo ngi daanu am na jàppante nañ ñoo eh, ngi suqante ñaari mbir si ko dende Brise Wi tee na Brise Wi jàpp na ngemb fakkat na ko tànn na ko jëlal ay waay lii lan la nii ay ko teeri xale jëlal ma lii yow man la fa naawaay laay moo waaw. combat bi gaaw na loo gis. lu doy waar. bi Aliou Mbaxal la tudd. waxoon ko sax waxoon naa la ko. dama mën a bëre. yow durant tout le combat da nga nekk à l'aise. waaw mais dama liggéey combat bi préparé naa ko trois mois. ma am ñaari adversaire ñu ñu ñu sàqi mais yal na leen yàlla defal jàmm moom moo mujj jël sama sama avance. di ko ñaanal jàmm beneen yoon bu amee combat ku dogul Kër Mbaye Fall yàlla may ko ndam mais nice Kër Mbaye Fall nañ génn jàppale ñu. ay xale te mun nañ lu ñuy def quoi buñ jugee àdduna mooy jug yàlla alhamdulilah. laay fu mu jëm. seet si leen moom wax lu neex barki Mama Sujanga ñëw leen.